قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون فردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة man maa ngi tudd Abdourahmane Fall maa ngi dëkk fii ci dox gi man maay initiateur événement bi maay parrain bi. dama am projet créer benn institut islamique mais scientifique et technique en même temps c'est un projet très ambitieux boo xam ni day demande moyen yu colossaux léegi en perspective à ce projet là ñu organiser concours de récital de Coran bi pour jëmmal. projet bobu jox ko communiquer ci ba paré jox ko crédibilité lolou mo waral parce que en vérité tam li ñuy jublu ci institut bobu moy dañu bëgg dajalé les meilleurs enfants de cette communauté ñu dajalé len fofu on veut faire de de brillants esprits ba paré nek nak des hommes vertueux motax suñu mbébét moy def si ñoom alxuraan mooñ leen ba ñu nekk ay jullit haqqan ba paré nag def si science xam-xam nous mën a njëriñ seen bopp njëriñ doomu aadama yi loolu moo indi institut boobu noonu lii nag avant première la pour institut c'est un projet faramineux qui va prendre du temps peut-être 3 5 10 ans qui sait mais en attendant ñu organisons wu nous préparons gën préparer xale ci ci ci projet une immense satisfaction parce que on est à notre troisième édition bi ñu ko defee première édition bi c'était un succès mais résultat yi c'était si probant que jàngalekat yi xale yi ñëpp ils avaient une pression ku nekk jàng le niveau a sensiblement progressé loolu rek ndam la su ñun au-delà de lépp lu ñu xaar mais le fait xale yi gën a góorgóorlu gën a jàngalekat yi gën a góorlu ñëpp tout le monde à la pression ku nekk bëgg nga say élèves gën a mën xale itam bëgg nañu gën a mën donc loolu mooy suñu première satisfaction